bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayiduna muhammadin wal ali wa sahbihi sabin nawalil wali bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki diaspora bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yal na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér di ñaanal sunu jëwriñ Serigne Mamour Ibn Cheikh Mouhamadou Moutada sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér jamiatu ala taawudi ala taatillahi wa rasul Touba Brescia ci njiitul sëriñ Modou Mbaw waaye ci kilifteef sëriñ Fallou Mbacké imam ñoo am mbégte di woo bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci bis bu rëy bii nga xam ne moom la ñuy séentu muy ñaar fukkeelu jataay muy édition bu bis bi nga xam ne moom la ñu njëkk a jagleel sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha ci biir suufu Italie kañ lay doon le 7 ak le 8 juin fan la ñu koy defee le 8 juin ci Montechiari Pala Giorgi Via Falcone numéro 24 kon ñun ñëpp nu bokk déglu sëriñu imam Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké bokk jullit di ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa kilifa ak yoon wi di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi loolu te wéral ko. ba li mu fas yéene liggéeyal islaam fas yéene koo liggéeyal Seexul Xadim mu def ci lu kawe njortam tan ànd koog moom di liggéey bii di sëriñ Maam Mor Mbàkke di ñaan sunu borom dolli koo dëgëral eh, ba lim fi mu àggale liggéey bi mu àggale fa fu kawe njortam tan ànd koog moom di nuyu mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi fii ci Touba Brescia ak li ko wër ak sunu mbokki soxna yi nga xam ne kenn mënu leen ci liggéey bi ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen dalal jàmm di leen fàttali ñun ñëpp di leen fàttali bis bi nga xam ne sunu bisub lislaam la di e, bisu 8 juin bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Murtada yàlla na ko yàlla fayal moo ko ñaanoon fii ñu nanguloon ko ko mu e, e, nekk bis boo xam ne bi ndamul lislaam la moo xamaloon niñ koy dundalee saa yu ñëwatee ci jàng alquran ak xasida ak salaatu ala ak ñaan kon ñu ngi koy fàttali ñëpp li ci des sëñ Saliou si mi nga xam ne moo yore kàddu commission culturelle dana ko mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi nuyootee siyaara bu baax te ci jiital Maam Mor mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi te nekk ci bopp jabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla na fi yàgg lool te wér di leen fàttali loo xam ne fàttewu leen ko sax muy bisu lislaam boo xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko ñaanaloon boppam nga xam ne ne lislaam ko moom jullit yëpp bokk ko muy la set ak le huit juin ñëpp miin nañu ko muy bis boo xam ne nag bis bu rëy rey la boo xam ne ni ñun moom rek la nu am ndax moo ñu ko joxoon ndigal te bis bu mel noonu itam ku ko amutoon mel na ni dootu yomb gannaaw am nañ ko nag ñun nañ ko fonk bu baax a baax ñuy fàttali nag di wax ci turu commission culturelle bi nga xam ne nii ñun ñoo ci nekk ci bopp bi di wax ne euh, lépp loo xam ne ni lu jëm ci wàllu xam-xam la lu jëm ci wàllu alquran ak xasida niñ ko daan fàttalee lañ koy fàttalee mbooleem ñi nga xam ne ni mën nañoo jàng alquran ñoo ngi leen di woo bu 9h jotee na leen fa fekk incha allah ak jànkati xasida yi nga xam ne alquran ak durus xasida moom la ñuy boole ci loolu la ñuy nekk ba julli tusbaar buñ jëlee tusbaar yi itam njàngum alquran mi xëy na mën naa taxaw waaye boobaa itam njàngum xasida mi day wéy ba keroog ñuy tàbbi ci waxtaan yi nga xam ne nii dañuy fàttali ak di leeralaat dund gi nga xam ne nii dund gu jara fàttali la mooy dundu euh, Cheikh Mouhamadul Mourtada te dundu Cheikh Mouhamadul Mourtada mooy dundu lislaam te loolu lu jara lu jara fàttali la kon nag ñoo ngi fàttali ne ñoo ngi koy def fañ ko defee woon daaw rek muy Palais Georges euh, Falcone euh, Via Falcone 24 Montichiari euh, yaakaar naa ne ñu bari xam nañu adresse ba bu ko defee itam nañ ko daan dundalee rek lañ koy dundalee muy jàng alquran ak tudd yàlla ak salaatu ala nabi ak jàng xasida képp ku fa ñëwit muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw na nga xam ne ci bisub lislaam ngay ñëw nga warmaal saw doxin andi yéene ju sell andi tamit col gu rafet rawatina suñu mbokk soxna yi a ko daan defee muy col goo xam ne ni ko col gu dëpp ak lislaam la ñoo ngi koy fàttali bu baax a baax euh, dund gi nga xam ne ne nag mm, Cheikh Mamadou daa tegoon nañu si ku sore woon ab gis la ndax dafa mel ni jamono tey jii moo taxoon muy taxawal loolee kon nag loola lu mat a fàttalil tey lu mat a jàngat la kon képp ku fa ñëw da nga fa fekk boroomi xam-xam yoo xam ne nii seen xam-xam dana màcc ca wàllu googa lépp ñu dund ñu dund ko dund gu ruux ku ñëw daal na nga xam ne nii ci bisul islaam ngay ñëw Euh, lépp loo loo loo xam ne nii jataayub lislaam laaj na ko ñoo la ñoo ngi la cay woo nga def ko bu defee itam euh, nañ ko nañ ko def ci yéen a ju sell sell wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ci ndigalul sëriñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides ndigalul sëriñ Mamor Mbacke ibnu Mour sëriñ Mourtada suñu jëwriñ ci yoon wi ni ko mbokk yi waxee ren la vingtième édition bu 8 juin daanaka nag jarul ci. yàgg lool ndax yàgg nañ koo woote ndax mbir bu ñu demee ba ñuy wax ñaar fukki at kon looloo jëratul ñu ci yàgg lool ndax nit ñi xam nañ ko benn particularité rek la am maanaam ginnaaw bu nu jaajëfalee Serigne Touba ba noppi dañuy rendre nag hommage ren maire bi nga xam ne si moom moo décrété woon bis bi muy faw Faustino Gatta ñu jàpp ni ginnaaw moom moo ko njëkk a def ci Europe kon dana dana dana jaadu noonu ñi nga xam ne si noonu la ko seqal nag nu fàttaliku ko ci mu ngi fi sax di dund incha allah yàlla na ko suñu borom yàggal wala nag ñu rendre ko ci hommage muy le 7 boobu ak le 8 juin rawatina nag le 7 la ci ëpp lépp faw si na gàtta lañ koy jagleel ren kon ci loolu ñoo ngi ci woo mbokk yëpp yéen ko bokkal muy sénégalais du sénégalais lépp jullit yëpp ñoo ngi leen ciy woo muy murit tiijaan xaadir laayeen képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ñoo ngi la ci woo rawatina nag mbokk yi nga xam ne si ñoo bokk liggéey bi muy daayira Cheikhul Khadim yi nga xam ne ñoo nekk ñëpp ci Italie te liggéey bi nu bokk ko da ci woo aussi tamit suñu daayira mbokk tiija tubaab yi nga xam ne si mooy daayira Ansar kon ci loolu ñoo ngi koy yëgal ñëpp rawatina nag suñu président de la république son excellence président Macky Sall di ko yëgal ambassadeur bi nga xam ne si moo nekk fii ci Rome di ko yëgal tamit soxna Rokhaya Ba Touré consul bi nga xam ne si moo nekk fii ci Milano kon daal ñoo ngi woo mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp ci bis boobu xam ne si noo ko bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barke borom daaru ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp tey ziyaare ku gis eh, jëmm yi toog gis nit ñi toog xam na la daan xew xewati na lan moo xew mooy bisub diine bisub lislaam bisub sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bim sàkkool fii ci Pontevico muy bisub sëñ Tuubaa mooy le 8 join nun nag nun fii ci Europe dañ ko jàppe comme muy suñ bisu màggalu Tuubaa kon nun li nga xam nii la ni soññee muy ci mbirum finance nañu xam ne kon lañu diktal ca Tuubaa moom lañu diktal fii ndax lu wax ji bari bari coow li bari bari lépp xam na ne Europe la nekk te lépp lu fa liggantiku mooy xaalis moo ko ligganti kon nag kenn ku ne jàpp ne bis bii bisu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bii bu jagee kenn ku ne yaa ko war a kenn ku ne jàpp sa bis nga ñëw teew ko te xam ne kon bisu sëñ Tuubaa bii yàlla ñoo ngi ziyaare ñëpp tey ndigal ñëpp kenn ku ne bis bi tim nga teew ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki taal bi yëpp di leen ziyaare di ñaanal Sëñ Muntaxaa mu yàgg fi lool te di jël kàddu rek di wax ci turu organisation ak mboolem loo xam ne nii rek moo wekku ci organisation maanaam muy commission organisation ak su commission yëpp ñu ngi wax ci seen tur di leen fàttali rek bis bi nga xam ne moom la ñuy def Pala Giorgio Montichiari via Falcone numéro 24 ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp di ci wooy tamit sunu jawri ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi muy waa Veneto ci turu Serigne Sidi Diop waa Bergabon ci turu Serigne Modou Diouf di ziar mbokki taalibe yëpp di leen wax ne daal bis ba moom bu soobee yàlla ñun waa organisation ñi nga xam ne ñu leen dénk liggéey bi. soññaat rek waa daayira Maam jaara ci organisation daayira Maam Diarra ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ci turu Ndey Sini ak ñoom Mati Fall di nuyu ñëpp di ziar ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen di. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñoo ngi nuyu mbooleem jullit maa ngi wax ci turu suñu présidente soxna Ami Samb daayira soxna jaara bu Touba Brescia ñoo oote ci suñu bés bu màgg bi bis bi nga xamante ne bi ne amuñu lu dul moom muy le 8 juin ñoo ci oo nag mbooleem jullit di ci woo diaspora bi yëpp di ci woo daayira yi maam Soxna jaaro fédération bi nga xamante ne bi ne moo nekk ci Touba itali ñoo ngi ciy woo daayira Tijaan daayira Laayeen daayira Xaadir bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo mboolem jullit rawatina taalibe yi ñoo ngi ciy woo suñu conseil général madame Rokhaya Batouré ak honorable député Mame Diarra Fam ñoo ngi leen di oo ci suñu bis bi ren nag dañoo jël bis bi ànd ko jam ya Cheikh Ahmad Bamba muy le juin le 7 juin bi ñu daan def dañ koo jël yóbbu ko ci la 8 juin àndi koog jamiya bi incha allah bu sëñ Mamor waxtaanee ak taalibe yi ba pare ñu def suñu ngontum soxna jaara bëgg nañ nag fu jigéen nekk ci diaspora bi ñoo ngi lay invité ngay ñëw ñu bokk bis bi. bis bi nag ñoo ngi ci oo ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koy julli rek ñoo ngi lay oo ci bis bi ñu ànd ko jërë ngeen jëf. ahousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci comité d'organisation daara soxna jaara bi ñu jiite man ak sama jëwriñ soxna Mati Fall ñi ngi woo képp kuy soxna ak tarixe boo mënti mbokk si Touba Italie ñi ngi lay woo nga ñëw si le 8 juin bi ren nag comme le 7 dañ daan woote ngontal soxna jaara ren dañ koo yóbbu le 8 juin incha allah bëgg nañ ñëpp teew képp kuy soxna daayira boo mënti bokk ak fépp foo féete nga ñëw wuy suñu jour le 8 juin incha allah rabbi si Pala Giorgio Montichiari via Falcone numéro 24 jërë ngeen jëf ñu ñaan yàlla yóbbuñu ci ak jàmm ci barkeb Serigne Touba. mbokk yi kon xew-xew baa ngoog xew-xewu lislaam a vingtième édition journée Cheikh Ahmadou Bamba Touba Italie nu di ci ànd nag ak suñu sponsor yi ana ñoo ñaan ak Tijaari Wafa Bank di ci ànd ak Bruxelles Airlines waaye itam di ci woo jullit yëpp di ci delloo nag njukkal ki nga xam ne mooy faw Faustino Gatta di nekkoon maire Pontevico njëkk yëkkati bis ci dund Europe jëmale ko Cheikh na Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha bis bi ren am na coppatiku mooy lan mooy bu sëriñ bi ñaanee ci 8 juin bi dañuy fanaan di ko dundal ci xasida ak zikrullahi ba bët set kon nag noo ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn vingtième édition journée Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Touba Brescia le 8 juin 2019 ci euh, Pala Giorgetti Montichiari via Valco numéro 24 yàlla nañ ci àgg ak jàmm te dañ ci àggal mu Cheikh Ahmadou Bamba ndax kat sëriñ bi nee na woon inni uxaatibu nasara turra fii ardihim li maliki mutarra teet xanoo bi ànd ni abdun ilahi wa xadim li rasulillahi te lii dëggal na ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu